regroupement des opérateurs économiques de Touba Royet am ndigal ci Serigne Mountakha Mbacké Bassirou fas yéene liggéey ci complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi ñaari amphithéâtre yu 500 places benn bu neñ war cee def lu toll ci 400 millions de francs CFA. jëlee ndigal ci Cheikh Mouhamadou Mountakha xalif général des Mourides pour initier ñaari amphithéâtre fii ci université bi nga xamante ni si moom la ñuy defaral maam Khadimou Moustapha amphithéâtre yi dañu wax ni dañuy defar fii ñaari amphi amphi bu ci nekk dafay nekk 500 places amphi bu ne coût de manœuvre bi dañ ko estimé woon ci 400 millions kon ñaari dafay mel ni dafay nekk 800 millions ci engagement boobu ci lañ nekkoon di ci dox di ci liggéey ba tey jii ñu yokk ci pose première pierre. liggéey bi ñu teg xeer bi ci alxamis ji ci teewaayu Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr ak Serigne Ahmadou Badawi ak yeneen kilifa. ñoom ñu yëkkati fay kàddu santaat bu baax ñi nga xam ne ñoo di opérateur économique yi nekkee ci Touba ci seenub taxawaay ak ànd gi ñu ànd ak Serigne Mountakha Mbacké Bassirou liggéeyub complexe Cheikh amadul Khadim bi. kon nag bañ agsee ci liggéey bi tey yéen ñi nga xam ne yéen la dénk liggéey bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ci barke Serigne Touba yàlla suñ borom defal leen ci ndimbal defal leen ci tawféex. ndax jëf ju toll nii kat ku am tawféex ndax Serigne Touba dafa waxoon ne yéen taalibe na ngeen sant yàlla bu baax ndax ëpp leen yeesu leen gi ñu jàpp leen bu ngeen ëppoon damay ñëw ba ba dem ngeen door a ñëw ngeen yeesoon itam da ngeen di ñëw ba ba dem ma door a ñëw gi ñu jàpp leen itam ndax da jëw leen man ba noppi ñàkk maa nangul kon yéen itam. da ngeen sant yàlla ndax bu leen yàlla defalee tawféex ngeen dëkk ci dëkk bi ñenn ñi seen ju néew fi di liggéey Serigne Touba ku mel ne Serigne Khadim ñu doon wax léegi wax na wax ju am solo waaye ku xam baayam xam ba séefi ma taxawaay bu la bett ñenn ñi itam àdduna dox bañ toxu si ñëw ci dëkk bi comme ci mën a doon rek tawféex la ju leen suñu borom defal ndax dëkk ak Serigne Touba kat tawféex la ndax foo xam ne foo ku yaakaar Serigne Touba. boo fi bàyyi ko bëggoo ñu yóbbu la fenn furut fii bu la suñu borom defalee feex nga dëkk ak sëriñ bi te sëriñ Tuubaa fàggul la ci dëkk bi loo xam ne lépp loo bëgg mu yomb loo jaay mu jar loola la ñu ci war mooy delloo sëriñ Tuubaa njukkal delloo sëriñ bi njukkal nag dara jiitu ci dara jiituwu ci lii bokkoon ci ay naalam mu fas ko fasoon ko yéene sëriñ bàkk bu su bind ko njabootam gi fi ne woon yëpp it fas ko yéene tàmbali tàmbalee ko Cheikh Abdoul Ahad ba àgg ci Cheikh Mouhamadou taxa suñ borom def mu nar a sottee ci loxoom yàlla na àgg ba mu ubbi ko te ni mu ko bëggee rek mu amee noonu kon bu ngeen amee taw tawféex mu sas leen ci sas wutal nii te yéen ñëw sàkku si ko mu jox leen ci ndigal wax leen kàddu yu soññi yu rëy yam leen wax kon la ci des mooy jom ak yitte te xam naa ne am na ci ndax tàmbaleegu leen te li ngeen dajale mën naa sori ci liggéey di leen xamal ne daal lii lu am solo la. fii nag dafa doon loo xam ne sëriñ bi daf koo ñaanoon ba sunu boroom may ko ko mooy dafa ñaanoon mu doon dëkk bi ci boppam mooy dëkkub xam-xam wa jaxlu da ban maskana taallumi muy sàkku xam-xam ak xamle wa maskana ta maskana taalumi wa maskana irshadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi nga xam ne boo koy boolee bayit yi benn bu ci nekk da nga naan doyoon na aw bayit waaye sëriñ bi ñaan te lum ñaan rek sunu borom nangul na ko ko barab bii ñu tase nag daa doon lu sunu borom defal sëriñ bi ba noppi ndax moo ne sunu borom defal na ma jàngukaay boo xam ne fépp fu nit bëgg a jànge xam-xam bu am njariñ dana fa mën a ñëw jàng si ko fa ku fi jàng ba noppi da nga mën a demaat ci goxe àddina bi fasanti koy dafa joxe xam-xam bu am njariñ boobu te def na ko ba noppi la wax kon nag lu nekk nag dafa am waxtu ak nu muy amee kon dañoo toll ci di ko defal waaye loolu lu sëriñ sunu borom defal sëriñ ba noppi la bil mustapha lii ba naan quddusu madrasatan biha yazulul ada wal jahal wal kamadu am na ba noppi kuy am tawféexi nag teg ca sa loxo loolu ak cant la bu baax a baax a baax rawatina nag yéen yi nga xam ne nag yéen a dëkk nag ci dëkk bi di fi yàndu ni ko Cheikh Mouhamadul Mountakha waxe woon kon xalaat bi dafa rafet lool. ginnaaw ñu tegee xeer bi liggéey bi dana door bala yàgg te ñoom sax nee ñu daañ ci def Pastef ndax liggéey bi ci fukki weer lañ ko fas yéene def. parce que comme pose def nañ pose première pierre bi am nañ entreprise boo xamante ni muy Afribat déggoo nañ ak moom ci modalité de travaux yi. kon donc dafa naan li ci des mooy ñu ko dem ci liggéey bi. diire bi nga xamante ne moom lañ ko appal ak liggéey ak suñu conseiller technique yeeg ak entrepreneur beeg ingénieur bi yëpp dañuy wax une durée de dix mois. di regroupement des opérateurs économiques de Touba fas yéene wu ñoo yem ci liggéey bi rek fas nañ yéene naal yeneen liggéey yoo xam ne daañu ko amal fii ci Touba Mbacké waaye ànd ak Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir mbooleem projet yi nga xam ne mi ngi koy yëkkati.